les autres parlent de validation, les autres parlent de mise en place, n'importe parle de quoi. Alors il y a une... nekk wax li nga xalaat mais je pense venir et perturber en préface prémédité on écoute ce qu'il va te dire voilà. mooy comme ñii dañoo ñëw pour faire un travail man naa am am nañu ci d'accord am nañu ci d'accordul c'est partout léegi li may ñaan comme dafay wax ngeen bàyyi ko mu wax après bu ko defee ngeen mën a jox la parole ku bëgg nga wax ñëpp déglu la bu ñu ñëpp bu ñëpp waxee après dana xam fu dëgg gi féete ñu dem foofu waaw boppam. non non seen waay ngeen war a non non xamul boppam seen waay yooyu ngeen war a xooli boppam. xamul boppam non dafa nank maa la gën a xam ne fi nga waxee. waaye moom it na pas la pas de Salim bi nga pas de pas. ñii xoolal ñii moo lay gën waaye doon dara waaye yéen affaire yi affaire newoon nañu xeer après ngeen ñëw dañuy sonn après ngeen ñëw après ngeen ñëw te day transhumant rek day transhumant ngeen